ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
macha allah barakallah fiikum jazakum allah xeyr macha allah xam naa kon mbokk yi li ñu wax ni nga xamante ni ñoom ñoo yore téléphone bi ñu ko mënee def si laaj wàllu makk avion bu keroog ustaas bi pare ustaas ahmed ahmed marabi ci toppee mashkuran mahjuran
bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ñoo ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di ñu ngi am mbégte bu baax kon ñëw fii ci Grand Mbao ci séminaire yi nga xam ne mbokk yi tàmbali nañ ko fi ci fan yi ñu seddu ñu war a waxtaane li nga xam ne mooy athaaru tawxid ala al fardi wal mujtama muy les effets du tawhid sur l'individu et dans la société mu nekk thème bu am solo nekk it thème bu war a wax bu ñu war a waxtaane rawatina réew mu mel ni Sénégal nga xam ne tawhid dafay tumuranke waxtaane tawhid day sax déranger ñenn ñi waxtaane tawhid day métti ñenn ñi waxtaane tawhid day tax sax ñu def la noonu te tawxiid waxtaanee ko ci en résumé mooy waxtaane yàlla yàlla booy waxtaane tawxiid mooy yàlla ngay wax parce que tawxiid li muy jàngale mooy wee woote ci wéetal yàlla woote ci wéetal borom asamaan ak suuf kon ni ko mbokk mi tuddee ñu ko fàttalee mooy li ñuy waxtaane kon mooy athaaru tawxiid alal fardi wal mujtama effet yi tawxiid war a def ci nit ki en tant que individu waaye société bi en tant que société léegi dañ koy globaliser borom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañ koy xaaj xool li ñuy waxtaane ci tawxiid ci li nga xam ne moom mooy individu bi ñu wax ko suñ paree ñëw li muy def ci société bi mais ñun lépp la ñuy boole parce que tawxiid effet bi muy def ci individu bi effet boobu mooy répercuté wu ci dans la société parce que l'individu moom ci boppam dafa nekk benn partie dans la société nit ki partie la ci société bi soo regroupé ñi ñëpp ñoom ñoo représenté la société mbokk yi ñu xam ne tawxiid mooy waxtaan bi gën a neex bu nit mën a waxtaane mooy waxtaanu tawxiid waxtaan bi gën a jub bi nit mën a waxtaane mooy tawxiid waxtaan bi gën a neex a déglu mooy waxtaanu tawxiid waxtaan bi gën a neex a tasaare mooy waxtaanu tawxiid waaye waxtaan bi gën a neex a jàpp ci waxtaan mooy waxtaanu tawxiid parce que yàlla ngay waxtaane tawxiid mooy tax jullit bi nekk dëgg jullit ku la ëpp tawxiid moo la ëpp ak njulite ku la ëpp tawxiid moo la ëpp ak lislaam ku la ëpp tawxiid moo la gën a nekk mu'min ku gëm yàlla ku la ëpp tawxiid moo la gën a ragal yàlla ku la ëpp tawxiid moo la gën a jege yàlla ku la ëpp tawxiid moo la dàq màggal yàlla ku la ëpp tawxiid moo la gën a respecté yàlla ku la ëpp tawxiid moo la gën a jox cër yàlla ku la ëpp tawxiid moo la gën a ragal yàlla ku la ëpp tawxiid moo la gën a fonk yàlla ku la ëpp tawxiid moo la gën a màgg mën a màggal yàlla parce que suñu boroom dafa màgg màgg goo xam ne moo màggal boppam sant ay jaamam ñu màggal ko yàlla tuutiwul dañ ko war a màggal saa su ne màggal ko ci jaamu ko màggal ko ci ragal ko màggal ko ci yaakaar ko màggal ko ci wàkkirlu bu ñuy wàkkirloog moom loolu yàlla yàlla la gën a màgg ñu ñëpp bu ñuy julli allahu akbar la ñuy ubbee suñ julli allahu akbar ñaari firin am ci mooy allahu akbar ñenn ñi firee ko yàlla ku màgg la firi boobu bu baax it des na parce que boo nee yàlla ku màgg la mooy am na keneen ku màgg waaye am na sax ba moytuwul ku gën a màgg mais soo nee allahu akbar yàlla gën a màgg lépp tëj nga bunt bi ku ñëwati kon ci suufu yàlla nga nekk yàlla la gën a màgg ñenn ñi dañ naan yàlla amul ku muy màgganteel bañ naan allahu akbar yàlla moo gën a màgg aha kay yàlla am na ku muy màgganteel parce que am na ñu koy diir mbagg akbar ci làkku arab superlatif la mooy ismu tafdil la ismu tafdil mooy superlatif yàlla dafa bëgg nit ñëpp nangu ne mooy le supérieur mooy le seigneur extrême mooy le supérieur ci lépp loolu moo tax firawna bi muy weddi yàlla sax dane qaala ana rabbukumul a'la a'la la jëfandikoo dëgg la yàlla Muusaa gi am na man nangu naa ne sax yàlla Muusaa gi am na waaye ana al ala maay bi gën a kawe c'est-à-dire maa ko supérieur te yàlla nanguwul ku ko supérieur yàlla moo supérieur ñëpp bi mu demee ba yàgg moom firawna nangootul ne sax yàlla am na far yaa ayyuhal mala'u maa alimtu lakum min ilahin ghayri mu dégager écarté yàlla complètement dindi ko fu le nangu woon na yàlla am na mais moo ko féete kaw mooy supérieur am ana rabbukumul ala mu dem ba yàgg mu ne yàlla mi nekkoon fii sax maanaam maay supérieur am éliminé naa ko nekkatu fi maa fi nekk kon suñu borom li mu bëgg moo ñu nangu ne moo féete kaw ala googu day saxali ne yàlla moo féete ci kaw moom yàlla moo ne ci kaw moo féete ci kaw moo tiim ñëpp loolu dañ koo bëgg ci mu bokk ci sens bi parce que da ngay saxal kaweeg yàlla ne yàlla dafa kawe ndax kaweeg yàlla googu sax am na ñu koy remettre en cause ne boo ne yàlla mi ngi ci kaw da nga koy wutal place te ñun ñëpp xam nañ ni ne yàlla mi ngi ci kaw da ngay saxal ak kaweeg yàlla mais yàlla kenn du ko tënk ci espace kenn du ko limité ci ci ci ci temps wala ci lieu yàlla kenn du ko limité ci lieu nii ci espace. parce que sunu borom moo jiitu lieu moo jiitu espace yàlla nekkoon na fi lieu na fi yàlla nekkoon na fi espace newu fi espace bi nga xam ni moom la monde bi ñu nekk univers bi enveloppé yàlla nekkoon na fi te univers bi di monde amu fi woon sunu borom nekkoon fi fan la nekkoon fii ko soob. nan la fa nekkee woon ni mu ko soobee moom yàlla subhaanahu wa taala loolu xel du ko lijjanti texte yi ngay jàng ci alquran ak sunna texte yi ñoo la ciy yóbbu mais xel mu ko jéem a lijjanti planté li daloon les grands philosophes jéem a lijjanti yàlla ak mbirum yàlla xel du ko lijjanti yàlla bi mu wàccee ab yonant wala bi mu wàccee téere yonnu yonant la écarté xel wane ne guidance bi liy guidé nit ñi ci moom yàlla envers leur seigneur nekkul xel bu doon xel la yàlla du wàccee téere di yonnu yonant dalay bàyyi yow sa xel bàyyi maag sama xel bàyyi kii ak xelam bàyyi kële xelam kenn ku nekk di xalaat di imaginer jaay intelligence jaay muus jaay xel mu neex ba xam nooy xamee yàlla mais suñu borom xam ne xel mënta daj yàlla mu écarté xel teg ko fële bëgg yow nga bàyyi sa xel ci jéem koo dugal ci mbirum yàlla loolu yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne tafakkaru fi xalqillah wala tafakkaru fillah bu leen di xalaat seen xel ci yàlla mais da leen jël seen xel di ko xalaat ci li yàlla bind mbindaa foonu yàlla yi xool lu toll di asamaan mënoo gis lu gën a rëy asamaan ba yàlla bindee bindaafoon mi ba léegi lépp lu rëy asamaan la gën a rëy lépp lu rëy suuf moo la gën a rëy yow lu rëy ba jaaxal la asamaan ko tiim wala déet te ay junneem ñoo fi nekk wala ay million ay millions ñoo fi nekk lu rëy ba jaaxal la suuf ak a yenu te feesul suuf am na espace bu bari bu des wala sax ay junneem ñu ngi fi buñ jëloon ci misaal ñu ne animaux yi lan moo fi gën a rëy ñu ne ñey waaw ñey dafa fees suuf ñaata ñaata milliers ñay ñoo am ci monde bi te feesuñu suuf ñaata milliers ñay ñoo am te asamaan mi ngi leen tiim te feesuñu asamaan kenn xamu nu mu toll. loo romb naan bâtiment bee ko rëy tuuti la occupé ci suuf te bâtiment boobu bu ko ëppam ci suuf te feesu ko kon sunu borom subhanahu wa taala loolu ci la wane ak màggaayam yàlla moom wane loolu lépp dafa bëgg ñu nangu ne moo ñu féete kaw moo ñu moo ñu tiim moom yàlla moo tax kawaayam googu xel nangu ko texte daal di koy nangu moom borom bi subhanahu wa taala. bu nit taxawee naan la yàlla newul ci kaw wala ne yàlla ci kaw la nekk loolu dafa nekk loo xam ni saxal ak kawayam ak màggaayam ne ci kaw la nekk moom yàlla loolu dafa nekk loo xam ni yëpp yàlla la wala tënk yàlla ci place la wala wutal ko place la. ñu ne ay nit sax buñ toogee nit buñ toogee ay nit buñ toogee kilifa gi boo ñëwee noo koy xàmmee ci kaw lay toog wala ci suuf ci kaw lay toog kilifa gi rek boo ñëwee fan lay toog fauteuil ne ci kaw gaa yi toog suuf ñu xam ne kii mooy kilifa gi président de la république bu toogee ak ay nitam bosam mooy gën a kaye wala mooy gën a yànj wala déet borom kër gu toog ci kër gi njaboot gi dañuy toog ci suuf u- mu uuf leen mu toog ci kaw suñu borom bind ay jaamam moom leen yàlla war a yem ak jaam yi ne ci kaw suuf xel nangu na ko xanaa xel mu feebar léegi borom bi subhanahu wa taala jële yonent bi jële ko màkk yóbbu ko Jérusalem jële ko fa yóbbu ko ci asamaan nga ne yàlla newul ci kaw léegi yonent bi fu mu demoon ak lan la jëli woon ak lu mu fa wuti woon yow miy saxal ne yàlla newul ci kaw ñu ne la fan la nekk nga ne boo nee yàlla dafa ne ci kaw da nga koy limité ci espace wala ci temps léegi yàlla fan la nekk nga ne fépp mais fépp aussi yaa ngi limité yàlla ci espace ak ci temps wala déet léegi yow miy wax loolu en même temps bu ñu lay wan ñaanal doonee damay ñaan def nii parce que yàlla ngi ci suuf nii laay def sooy ñaan say loxo ci kaw nga koy tàllal ne nii ba pare boo paree raay sa kanam ne yàlla newul ci kaw léegi loxo yi lu ñuy wut lu ñuy wut fii lu tax defoo ko nii gauche wala droite wala nga def ko sa ginnaaw doo ko def wala nga jëmale ko nii ci kanam gi doo ko def kon sa nafs sa damir sa conscience intérieurement mi ngi saxal ne mi ngi affirmer ni yow nangu nga ne yàlla mi ngi kaw doo sa salaam mi leneen lay wax xale bu ndaw bu kenn yàqagul fitraam yàqagul fitraam soo ko fekkoon fi tey ne ko suñu borom anamu lan la lay wax ah yàlla mi ngi ci kaw mais suñ demee ba sol ci bopp bi naan boo ne yàlla mi ngi ci kaw dafa garaaw dafa nangam mu commencé changé yonent bi alisi woo ab sàmm boo xam ni mbindaan la nekk jaam doon liggéeyal kenn ci saxaaba yi ñu am problème xuloo mu ne ko woo ko mu ñëw mu woo ko mu ñëw mu ne ko ani yàlla mu ne ko mi ngi ci kaw mu ne ko man maay kan mu ne ko yaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko a'tiqha fa innaha mu'mina goreel ko parce que kii gëm na yàlla léegi xadis bi jàngale kon laajte yàlla fan la nekk sunna la tontu bi ne mi ngi ci kaw moom la yonent bi saxal ku saxal leneen li nga saxal yaa ko saxal mais ki yàlla yónni li mu saxal mooy mi ngi ci kaw léegi ki yàlla yónni bu saxalee ne ki ya boromam mi ko yónni mi ngi ci kaw benn ma sàmba benn ma dem na yàlla newul ci kaw ñaari waxee suñ leen tegee sur la balance ban wax la ñuy jël ah bu yonent bi mbokk yi moo tax ku la ëpp tawxiid gën laa sell déggin ci yàlla compréhension ci yàlla gën a wér gën laa nangul yàlla ay melokaanam gën laa nangul yàlla ay turam du dàqal yàlla ay melokaanam du dàqal yàlla ay turam màggaayu yàlla da koy nangu kaweek yàlla ni ci kaw da koy nangu sañ-sañu yàlla da koy nangu waaye day jox yàlla wor ma da koy respecté parce que doomu aadama yi ñi ci ëpp respecté wuñu yàlla yàlla moo waxal boppam ci alquran ci suratu zumar wa ma qadarullaha xaqa qadrihi dëgg-dëgg yàlla dayo bi ngeen ko waroon a jox respect bi ngeen ko waroon a jox joxu leen ko wallahi ay nit a fi ay nit dañ gën a respecté yàlla wala déet am na ñoo xam ne xamuñu yàlla liñ xam ci seen moroom mbindaafoon xamuñu ko ci yàlla santaane yàlla seen yoon nekku ci tere yàlla seen yoon nekku ci jaamu yàlla yàlla santaane seen yoon nekku ci ñu ngi bokkaale yàlla bokkaale ñu wàlla yàlla tant pis seen yoon newu ci jikko yàlla santaane seen yoon nekku ci lan moo leen ko yóbbee mooy ñàkk tawxid ñàkk xam yàlla parce que tawxid da tax nga xam grandeur yàlla màggaayam yàlla soo xamee màggaayam leneen lu dul yàlla day tuuti sa kanam bu tuutee sa kanam yàllaay màgg ci yow mu yàlla màggee ci yow da ngay jël sa xol wékku ko ci yàlla yaakaar yàlla màggal yàlla fonk yàlla ragal yàlla wéeru ci yàlla topp yàlla toroxlul yàlla wommatul yàlla léegi loolu lu la koy may mooy nga am tawxid mu ancré wu ci sa biir xol nga xam ne suñu borom moom nga war a jaamu lépp luy xeetu adoration moom nga koy defal yàlla moom nga war a wéetal suñu borom jaamu yi ngay jaam moo lay fay ma sàmba fayu la ma demba fayu la waaye jaamu yàlla yi soo ko deful suñu borom duma la jaamu yàlla yooyu lu ñu baax baax julli gi lu mu sell lu mu lu mu lu mu rafet rafet koor gi lu mu rafet rafet saraxa gi lu mu bëri bëri azaka gi lu mu duun duun ak màkka gi defal demal dix fois ñu naan la alaaji wala ajaratu te jaamu yàlla gi tawxid lalu ko tawxid newul ci suuf tawxid ëmb ko sellut suñu borom du ko jël loolu lim lay poussé mooy balaa ngay sonn ci jaamu yàlla gi da ngay sonn ci liy baaxal jaamu yàlla gi balaa ngay sonn balaa ngay sonn ci defar fondement wala ngay wala defar defar entretien plafond wala ngay teg ay poteau mais da ngay defar fondement bu dëgër ba pare li ngay tabax door a mën a jóg door a mën a yëkkatiku tawxiid mooy ruu jaamu yàlla yi mooy xoolu jaamu yàlla yi jaamu yàlla bu amul tawxiid dafa dee jaamu yàlla bu amul tawxiid dundul bis bu nekk ma joxe misaal ci ne ñun Sénégal li ñu gën a xam muy ceebu jën ndaw soo fi ne toggal ceebu jën mu dugg ci waañ bi togg ceebu jën yekk indi daa di yekk nga gis ceeb bi gis ceeb gis ñam bi carotte suppame kaani batanse ba mu jeex takk gisoo jën yi loo koy wax yow loo togg lan nga togg mu ne la ceebu jën nga ne ko bu ñu fonto ana jën yi mu ne la maa ngi ko bàyyi ci waañ wi nii rek laa indi pour ñu lekk loo ko na loo koy wax indi jën yi ceebu jën bu ñu koy wax lan moo tax jë- ñam bi bee tax wala carotte bi lan moo tax jën yi moo tax tayib ta ja- jaamu yàlla bu ñu koy wax ci lislaam lan moo tax tawxiid bi moo tax tawxiid gi moo tax bu ci tawxiid gi nekkul tuddee ko lu ne lu ne tuddee ko lu la neex ba mu des jaamu yàlla wala déet ceebu jën it boo ko toggee te jën nekku ci tuddee ko lu la neex ba mu des lan ba mu des ceebu jën dafa mel ni gars yi bëgg nañ ceebu jën kon ñu bàyyi ci xel lii mooy li nga xam ni dayo tawxiid fa la toll léegi nag lu mel noonu buñ demee ba aw nit réere ko fa ngay fekk ku naan la day xeex ak yàlla xamul luy tawxiid parce que yàlla waxuma la xeex ak yàlla waaye mbindaa foonu yàlla yi benn ci mbindaa foonu yàlla yi bu la jub see ba ko yàlla yónnee ci yow sa àllaaxira taxaw fu nit ñi réere tawxiid rek ngay fekk ku naan la ah ku naan la li may jaamu soxla ma yàlla nangu ko mu nangu kook mu bañ koo nangu moom laa yemale ku xamul tawxiid mooy wax loolu ku xamul tawxiid kese ngay fekk mu naan la jaamu yàlla gi may jaamu yàlla nekkul jaamu yàlla pour dëgg a dem àjjana wala ragal a dem safara waaye jaamu yàlla gi dama koy jaamoo rek parce que damaa bëgg a jaamu yàlla wala damaa sawar sama yaram a koy laaj wala rek damaa yëg ne yàlla ku ñu war a jaamu la wax ju yàqu la yarjuna rahmatahu wa yaxaafuuna azaaba yàlla da nga koy jaamu yaakaar ci ibaada gi tuyaaba ragal bañ a jëfe jaamu yàlla gi mu duma la parce que yàlla moo ne ku jaamu ma fay la ku deful ma duma la yàlla ko waxal boppam moo tax mu ne yarjuna rahmata wa yaxaafuuna azaaba ñi may samay jaam dëgg dañuy jaamu yàlla di ci yaakaar yërmande mais dañuy ragal sànk ko ngir yàlla dafa yor mbugal suñu borom dafa bind kër gu tudd àjjana bind kër gu tudd safara ñaar yépp mu am ay critères yoo xam ni critères yooyu ku ko remplir dem ci benn ci ñaar yi ku remplir critères yi tax nga dem àjjana nga dem fa ku remplir critères yi tax nga war a dem safara da nga fay dem critères yi lay yóbbu àjjana ba ca jiit nekk ci bopp bi mooy wéetal yàlla tawxiid mooy ponk bi njëkk ci ponk lislaam mooy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah tawxiid mooy ponk bi njëkk ci ponk iman la muy les piliers du dogme bële les piliers de l'islam cinq yi tawxiid da ci jiitu les piliers du dogme islamique muy six piliers juróom-benni ponk ponk iman ngëm yi tawxiid moo nekk ci kaw ba ca jiitu mooy al imaanu billah mooy nga gëm yàlla gëm yàlla gi mooy gëm existence am gëm na yàlla ku am la amu ko yàlla du lu ñuy laam-laame texte da ko wone xel nangu ko doxinu aduna nangu ko bu fekkee ni sukkandiku ci ay cinq sens ak six sens bëgg a tax nga dàq existence yàlla di nga dàq lu bëri xel mi nga yor mu nekk sa bopp musoo ko gis musoo ko xencu musoo ko noyyi musoo ko sentir te gëm nga ne am nga xel ku la ne ana sa xel munoo ko wone gëm nga ni am nga ruu ruu gi nga am ban ci sa cinq sens yi moo mos a découvrir ruu musoo dégg riiram musoo ko ñam yàlla bind ay yoo xam ni daf ko insérer ci sa biir yow en tant que être humain en tant que nit yooyu nga réere ko mënoo ko découvrir ci say cinq sens nga bëgg a découvrir sa sa cinq sens yi yàlla mën naa nekk nga ne lu cinq sens yi wala six sens yi mënta découvrir du ma ko gëm te gëm nga ne am nga xel ku ne amoo xel nga xeex ak moom léegi léegi léegi nga xeex ak moom wala déet léegi wan ñu xel wan ñu xel wala nga dessinéel ñu ko bu dee mën nga koo découvrir léegi yàlla mi ngay wax ni mënoo ko découvrir da nga xalaatul mais soo xalaatee baa xam ne suñu borom ci yàlla koo mën a découvrir la asamaan si xam nga ne jékki-jékki yu fi am suuf si ngay dox nga xool suuf ni ko yàlla bindee ni mu nivelé doomu aadama yi li ñu bëri bëri attan na leen oto yi attan na leen bâtiment yi attan na leen animaux yi attan na leen yàlla bi muy sàkk suuf xam na suuf ban poids la ko war a jox mu am ko xam na ñaata nit ñoo war a jaar ci kaw suuf ñaata animaux ñaata garab ñaata oto ñaata bateau ñaata avion ñaata conteneur yàlla xam na lépp mu jox ko poids boo xam ne bu ñëwee du koy téye doo mës a dégg scientifique nañ wàññi bâtiment yi ñuy tabax wala conteneur yi ñu indi parce que dañoo sentir ne suuf fii ak 10 ans yi di ñëw du attanati poids bi ku ko wax waxoo dëgg parce que suñu borom bi muy sàkk prévoir na loolu xam na ko nga xool yàlla ni mu bindee asamaan chaque fois ma wax ko asamaan ne ci kaw suuf ne ci suuf lu tax suuf newul ci kaw asamaan ne ci suuf est-ce que yéen a ngi koy xalaat bu suuf ne woon ci kaw ku téen fattu ñëpp ay takk verre wala nga kaalaw wala déet bu suuf ne woon ci kaw ku xool fattu ñëpp ay takk ay verre wala ñëpp ay kaalaw mais lu tax asamaan ne ci kaw suuf ne ci suuf tax contraire bi amul tey lu tax asamaan si suñu borom daal di koy tabax mu dëgër asamaan du fel suuf si nga mën a jékki-jékki dégg tremblement de terre ki doo mës a dégg ki doo dégg ba mukk tremblement du ciel lan moo tax lan moo tax mooy ki bind suñu borom subhanahu wa taala dafa xam li muy def li ngay dox muy suuf mën naa trembler nga tëdd ci di xaar négocier mais yële tiim bu doon trembler di ñëw boo dawee xamoo da ngay dem kanam affaire bi ñëw wala nga dellu ginnaaw mu ñëw wala nga taxaw mu fekk la fi daal la nga dugg ci biir suuf si xamoo nu muy demee léegi lan mooy solution bi lan la mooy bii moo gën a yomb yëngatu ko bi la tiim parce que asamaan suñu borom dañe dama koo tabax wa samaa banaynaaha bi aydin dama ko tabax ak sama loxo waxaat ne wa banaynaa fawqakum sab'an shidaada juróom-ñaar yu dëgër këcc laa tabax juróom-ñaar asamaan léegi ingénieur bi architecte bi maçon bi su ne lee sa bâtiment bi ma tabax dafa dëgër këcc da nga naan ko sa xel day dal léegi yàlla ne man li ma tabax dafa dëgër ne këcc na sab'an shidaada dëgër këcc kooku dëgër wala dëgërul moo tax tremblement du ciel jamais au plus grand jamais mais tremblement de terre parce que yàlla ci suuf ñaari baat la jëfandikoo madat naa farash naa laal lu ñu laal léegi lu ñu laal mën naa laal lekk wala du laal lekk mën naa yëngatu wala du yëngatu mën naa yëngatu moo tax yooyu boo ko xoolee xam ne yàlla tuutiwul ki def lii dafa xam li muy def te tuutiwul comme tuutiwul ah ku ñu war a màggal la tawxiid moo lay may nga xam kattanu yàlla puissance am force am màggaayam nga xam ni da nga ci xam tuuti waaye xamoo daya gi ni mu toll borom bi bi mu sàkkee moom aadama ba léegi ñaata milliards doomu aadama ñoo fi jaar kenn xamul nu mu toll ñaata góor ñaata jigéen ñaata màgget ñaata ndaw kenn xamul nu mu toll suñu borom subhanahu wa taala su fekkoon ni yàlla dafa bind nit ñi ñuy dund te kenn du dee te doomu aadama ni mu bëggee dund bakkanu nit dee rek la ragal dee rek la bañ boo ko tuddee ñi faxa seen nopp ku toog ji buntu kër séedub ñëw daw dugg sa kër kenn ñemewul dee koñ bi bu amee ku fi dee ñu fomm musique yi fomm caaxaan yi lenn rek moo mën a fommuloo sénégalais yi xumb xumb mooy dëjëg dee jigéen ñi ñi dul ñi dul muuru lenn rek a tax ñu muuru ba yiw mooy dëj am na ñu war faa dem far force ñu muuru kenn ñemewul dee léegi dee googu suñu borom téel ko boppam moom yàlla subhanahu wa taala programme ko ci anam boo xam ni moment bu nekk jour bu nekk guddi gu nekk suba gu nekk ngoon gu nekk minute bu nekk seconde bu nekk tierce bu nekk am na ñu war a faatu moom borom bi naka la ñuy faatoo moom moo ko xam moom yàlla ku war a dem ku nekk dem mu teg ko ci xikma boo xam ni moom rek moo xam lu tax léegi ñooñu dem naka la ñuy demee kenn xamu ko kenn na ko xam muy borom bi léegi ñooñu dem yàlla dosé ko dosage boo xam ni nit ñuy faatu dinañ faatu te aduna bi du manqué ay nit lan la ñu manqué du tax du manqué ay nit programme na ñuy juddu ñuy juddu mu équilibré ko ba ñuy juddu duñ bëri ba monde bi xat waaye ñiy faatu duñ duñ bëri aussi ba aduna bi manqué ay nit léegi dosage boobu dosage boobu maîtriser ko mën ko téel ko sa bopp di ko def duñ jékki-jékki ñu ne aduna bi manqué ay nit te pourtant lii dee ci ay guerre ay tremblement de terre ay volcan ay tsunami lii dee ci avion yu avion yu daanu bateau yu suux ay train yu mbëkkante accident ay oto kenn xamul nu mu toll chaque jour ay milliers ñooy dee mais ànd ak loolu loolu di dee am na suñu borom nu mu programmé ci benn minute bi benn seconde bi lu mën a judd remplir at affaire bi fii ak ay année du am conséquence ñu yëg ne monde bi nit ñaa ngi dee mais nit ñaa ngi da nga naan sax est ce que nit ñaa ngi dee xoolal aduna bi ni mu bëri ah kay nit ñaa ngi dee yaa ngi gis tàggee ci Facebook WhatsApp yaa ngi koy gis ci rajo yi yaa ngi koy gis ci télé yi fu nekk nit ñaa ngi tàggee foo romb gis dëj saa boo xëyee di nga gis dëj wala nga romb dëj wala nga dégg dëj kon nit ñaa ngi dem mais boo ci rendu compte da nga naan est ce que nit ñaa ngi dem ah kay ñu ngi dem mais da nga yëg ni ñaa ngi judd yaa ngi romb ay ngénte yaa ngi romb ay xew yaa ngi romb ay cérémonie ainsi de suite kon nit ñi aussi ñu ngi ñu ngi judd kon programmation boobu léegi ki ko def kooku ko bëgg a tuutal est-ce que du yow yaay tuuti ah ku ko bëgg a tuutal est-ce que du yow yaay tuuti suñu borom tuutiwul dafa màgg màggaay googu wallahi li tax nga mën koo xam mooy tawxid moo tax tawxid du caaxaan parce que li gën a màgg li jullit ñi am mooy seen borom borom boobu xam-xam bi koy jàngale moo gën a màgg ci xam-xam itam mooy xam-xamu tawxid moo ilmu tawxid wala ilmu aqida mooy xam-xam bi jàngale borom bi yàlla mooy kan lan la ay sañ-sañam lan mooy ay moomeelam moom borom bi lan moo yell ci moom lan moo yeelul ci moom naka la ñuy gëmee yàlla ngëneelu gëm yàlla ak fi mu lay yóbbu danger bi nekk ci weddi yàlla ak lim lay jural lim lay yàqal ci aduna lim lay yàqal ci àllaaxira loolu mooy yi nga xam ni. mën naa mën naa tax nit ki gën a bàyyi xel gën a yittewoo xam-xamu tawxid gën a yittewoo jàng tawxid gën a yittewoo xam njëriñ ak intérêt yi nga xam ne tawxid da koy def ci li nga xam ni moom mooy jàmm bi kon bu ñu jógee foofu suñ ne tawxid am nay ngëneel am nay vertu kooku boo ko doon lim doo fi jóge alquran ceeru alquran ci tawxid lay wax xadis yi ñëw di wax ci tawxid kenn xamul nu mu toll kon ngëneel yi tawxiid di def ci nit ki bëri na bëriwaay boo xam ne soo ko doon tudd mën nga fee yendu tey suba ginnaaw suba ginnaawaat suba wax ko ci benn audio wala ci benn minute ci benn kàddu wala ci benn jataay mënta nekk lan moo mën a nekk mooy nga cof ci wala nga beneen yoonee keneen cof wala mu résumé wala nga ñëwaat cofaat wala nga résumé waat ndax alquran yëpp tawxiid la mboolem saar yi wàcc màkka tawxiid lay jàngale mboolem saar yi wàcc màkka tawxiid lay jàngale mboolem saar yi wàcc Medine bëri nay atte yi ñuy jàngale ci wàllu sëy wàllu muuraay wàllu jënd ak jaay wàllu ray ak rendi ni ñu ko war a sellalee ngir borom bi wàllu azaka wàllu julli wàllu commerce wàllu riba waaye ci biir loolu dañuy waxaale aussi ci tawxiid donte aaya màkka yi ñoo ci gën a fës kon loolu boo ko toppee day bëri xadis yi kenn xamul nu mu toll loolu moo tax la nga mën moo cëf ci leen mbokk yi li njëkk ci li nga xam ni mooy ngëneelu tawxiid loo xam ni mën nañu wax ni mooy effet yi nga xam ne tawxiid da koy def ci nit bi ci nit ki nga xam ne mën nañ ko duut baaraam suñ ko doon tudd bëri na lool waaye dinañ tënk ci yenn daañu wax ne la ca jiitu mooy bokk na ci effet yi tawxiid di def mu nekk effet yu rafet yu baax yu am dayo mooy tawxiid mooy afdalu xayrin fi dunia wal axira mooy yiw bi gën ci àdduna bu nit mën a am mooy yiw bi gën a jëriñ nit àllaaxira wallahi nit amul ci àdduna lu gën wéetal yàlla ab julit amu ko amal adduna ak li ci biiram nekkal milliardaire nekkal lu la neex boo amul tawxiid rabu àll yi ñoo la gën mala yi ñoo la gën ñi yàlla yi wax ne ñooñu dañoo mel ni ay mala wala sax mala yi gën leen ñooñu nga yaakaar na ñan la moo ñu xamul seen borom ñi wéetalul yàlla subhanahu wa taala parce que nit yàlla sàkk la nga jaar fi nga jaar may la xel ba nga ñëw ci adduna xamoo yàlla xamoo nu ñuy wéetalee yàlla loolu lu garaw la beneen bi mooy tawxiid mooy asababul azam li tafrijil kurbaat mooy sabab bi gën a rëy pour yàlla teggil la ay tiis Sénégal nag kéemtaan la dëkk bi nit ñi bu ñu nekkee ci tiis ci la ñu gën a bokkaale yàlla gis ku nekk jafe-jafe ñu ne ko demal xabru sàngam xabru diw nga ñaan fa say soxla diw mi nga taxaw ci xabroom xamul ne sax taxaw nga fi yow yëgul ne yaa ngi dund yëgul ne yow juddu nga yëgul ne am nga ndey ak baay xamula moom jóge na fi pendant cent ans wala cinquante ans wala vingt ans wala dix ans nga ñëw taxaw ci kanamam léegi fan ngeen gis néew bu nit ñëw taxaw ci kanamam ci kanamu bàmmeelam mu yëg ne am na ko fi taxaw loolu am na sénégalais yi am na ñoo xam ne foofu lañ toll mooy jàpp ne borom bàmmeel bi ne ci bàmmeelam man sax mi ngi may gis wala xam na samay soxla kooku yow la soxla yow yaa moom moo soxla sa ñaan yow mi dafa taxaw yaa ko war a ñaanal yàlla dolli ko njéggal dolli ko yërmande yàlla yërëm ko yow yaa koy ñaanal mais moom munu laa munu yëgul na yaa ngi bay faj sa soxla xamul luy sa soxla xamul lu existé nga xamu ko kon tawxiid sabab bu rëy la pour yàlla teggi say tiisa ki say jafe-jafe loolu gis nañ ko ci xisatu yonent yàlla yunus bi mu bi ko jën wi lekkee mu ne ci biir jën bi jën bi nekk ci biir géej gi mu nekk fa ay fan borom bi nee na su fekkutoon ne moom da doon sàbbaal yàlla dana fa nekk ba keroog yàlla di dekkal jaam yi lawla annahu kaana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasun lan la yunus wax surtout anbiya laa ilaha illa ant subhanak inni kuntu min alzalimin gis nga lan la jëfandikoo bi mu jàqee ba jàq lu mu jëfandikoo tawxid maa ngi seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëkk dul yow sell nekkal na la yàlla man maay aji tooñ di sàkku nga jéggal ma ñun fii nag nit fi mu jàqee fa lay dem bokkaale yàlla da ngay feebar feebar bi metti ñu ne demal ci diw mu tuflil la ci morso bu xonq beeg bu ñuul bi ak bu weex bi takkal la ko morceau bu weex boo xam ne yow yaa dem jënd ko cent franc yaa ko jëlee ci boutique bi morceau bi mën faa déplacer boppam yow yaa ko jënd ñu jël jaay la ko nga jël ko morceau bi mënta résister wuñ bi mënta résister de yow yaa ko téye sa loxo naj ko ci loxo bi dugal sa poche waaxu ñëw ba ci waa ji daal di ko koy jox waa ji tàllal tuuf li takk morceau bi yëgul tinul xamul lu xew après ñu takkal la ko morceau bi yëgul ne takkal nañ la ko léegi morceau bi war laa défendre kon la xelu doomu aadama yi soo ko waxee ñu ne ah lii fi lañ ko fekk liñ fi fekk te bàyyi ko ak bëri ana néegu ñax yi fekkuñu fi woon ay néegu ñax fii suñu maam yi ana ana baraag yi yëkkatiwuñ ko étage diine ji tamit dañoo war a étage diine ji tamit dañoo war a étage du loolu dañ ko dégager étage diine ji am na xam dañ koy dégager étage aussi c'est la même chose waaw li fi maam yi bàyyi woon li fi maam yi bàyyi woon lekk yi sax kenn lekkatu sama mbokk tukulóor yi kenn lekkatu fi ñiiri bu na sama mbokk saalum saalum yi daanaka ñeneen ñu ngi koy waaj a bàyyi wala déet waaw lekk yi sax am na ñu bàyyi soo sa yeeg ñeneen ak ñeneen kenn ku nekk amoon nga sa plat mais bàyyi nañ ko modernité bi rek yi ci bëri yi ñu bàyyi ak a bëri caaya ana mu ana caaya am na ñoo xam ne soloo leen ko yéegal leen asamaan moo moo gën a yomb ci ñoom wala déet ah ak yeneen ak yeneen li fi maam bàyyi woon li fi maam bàyyi woon ak a bëri fu ñu ko teg jigéen ñi am na yoo xam ne maam yi dañ ko daan sol ci ay façon ñaw ak yére jigéen ñi kenn xalaatul ñu sol ko ci jamono yi maam bàyyi woo ko fi woon bu la arrangé nga ne li fi maam bàyyi woon su la arrangé wul nag nga ah wut fa làqatu bu dee li fi maam bàyyi woon nañ ko généraliser rek air plus yëpp ñu bàyyi ko dellu ci baraag yeeg néegu ñax yi soo ko waxee ñu ne la da ngay comparer lu comparable ak a comparable ak a comparable da ngay jël aduna ak àllaaxira rek teg aduna ak diine teg li tax nga nangu li ci aduna li nangu woo ko ci nangam li tax nangu woo li daa am lay li tamit ci diine dafa am lay li tax war waroo ko nangu loolu foog ñu bàyyi ci xel bokk na ci mooy tawxiid bu sell day tax nit ki am sécurité ci aduna ak ci àllaaxira alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn amaana ngoo wahum muhtadun alhidaya ngoo ah kon alhidaya ak al amn mooy ñi nga xam ni seen ngëm yàlla rax raxuñu ci jaxase wuñ ci dugaluñ ci boole wuñ ci ah ñambaasuñ ci lan bokkaale yàlla dañu am sécurité fii ci àdduna sécurité bi mooy pas-pas bu wér ngay am kenn du la kenn du taxu sa pas-pas kenn du la sànd ay lënt bal yow mi am tawxiid dañ lay ragal dañ lay daw dañ lay ragal da ngay daw des fois nga jaar fenn ñu lay doxal naan waajaa ngi nii mooy wax nangam mooy def nangam ah lan la mooy tawxiid nitu tawxiid kenn du ko ñeme mbooloo mu nekk ci caaxaan ak sirk bu ñu la séenee sax dañuy dañuy puus ba nga jàll waaw bu ñu dinañ sànni ak wax mais ay ba moytuwul sax kàddu yi du kawe ñemewuñ nitu tawxiid tawxiid bokkaa la ñemewu ko ni nga xamee ne nitu bidaa ñemewul nitu sunna tawxiid moo am doole dafa tàng dafa bëri doole ah dafa fort tuutiwul parce que lu bàyyeekoo ci yàlla la ah lu bàyyeekoo ci yàlla la moo tax nit ki bu ko amee day am sécurité fii ci àdduna sécurité bi mooy tafukatu pas-pas yi dañ koy may jàmm du ñëw yàq ngëmam dañ koy daw sori ko beneen bi mooy mi ngi ci hidaaya sécurité da koy am fii ci àdduna mais da koy am àllaaxira aussi bokk na ci mooy tawxiid ku ko am yaa ngi ci alhuda al alhuda al ku gën a nekk ci tawxiid ku la gën a mat la tawxiid moo la gën a mat ak njub moo la gën a am ak hidaaya tawxiid day tax suñu borom jéggal la bàkkaar lu mu bëri bëri bëri suñu borom daf lay jéggal bàkkaar yi tawxiid ak bàkkaar dafa mel ni nga jël dara dugal ko ci géej géej gi daal di koy muur daal di koy naan borom bi dana wax ci xadisul qudsi ci xadisu anas bi yonent bi nettali nee na yabna adam innaka law atatani bi qurabil ardi xataaya summa laqitani la tushrik bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira soo daje woon ak man indi lu toll ni suuf si ci ay bàkkaar ma xool ko gisuma ci bokkaale mën naa laa jox lu toll noonu njéggal bokk yi tawhid am na solo de tuyaaba bi gën a rëy nit mën ko liggéey mooy wéetal yàlla wallahi nit du julli yu bëreeg nangam yépp baax na mais tuyaaba bi gën a rëy nga am mooy fexeel ba doo bokkaale yàlla si sa làmmiñ làmmiñ bi bu si bokkaale yàlla bul bokkaale yàlla ci xol bi bul bokkaale yàlla ci jëf yi ñett yi yépp sori ko ashirku al qawli wal fi'li wal i'tiqaad boom ci nekk sori ko soo ci bokkaalewul rek muccu nga ab julit ne fexe ba bu mu dee ci bokkaale ba tax ahlu sunna dañoo yërëm nit ñi parce que nit ñi soo leen yërëmee li mën a yàq seen aduna mën leen tàbbal safara mën a yàq seen àllaaxira mën na leen indil merum yàlla da nga leen koy moytuloo te loolu mooy lan mooy wéetal yàlla mooy ak tawxid mooy wéetal yàlla kon nit ki amul lu toll ni tawxid amul lu gën a rëy tawxid amul lu gën a màgg wéetal borom bi kon loolu effet la boo xam tawxid da koy def ci nit ki mooy boo ko faatuwaalee dem àjjana bàkkaar lu mu bëri bëri suñu borom mën na la kaa jéggal bu fekkee bokkaale nekk ko ci bokk na ci effet yi mooy tawxiid mooy sabab bi gën a rëy dugg àjjana suñ kër kër gi yëpp lan la du pour dem àjjana la tawxiid mooy sabab bi gën a rëy pour mën laa dugal àjjana xadisu ubadat ibnu samit yonente bi alayhi salaam dane man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu adxalahu llahu aljanna ala ma kaana min al amal nee na ku seede ne amul kenn ku ñu jaamu ci dëgg ku dul yàlla yonent yàlla muhammad jaamu yàlla la ndawam la du rek jaamu yàlla comme ni ko juifs chrétien di waxee muhammad abdullahi kese la baaxul waaye abdullah rasul la jaam bu plus la qul innama ana basharum mislukum misli yee googu mooy lan yuuxaa ilayya gi mooy risaala gi nit laa comme yéen nit la kon abdullah mais dafa am ab jaam plus la mooy yuuxaa ilayya man dañ may wax yonent la te yoon doon leen yonent kon abduhu wa rasulu kon yonent la bu ko génnee aussi kon ci cadre jaam parce que abdullah ñeen ñi dañuy bëgg a génne yonent yàlla muhammad ci cadre jaam comme ni ñu koy séddalee muhammadu zaat ak muhammadu ah muhammadu nuur muhammadu zaat mooy jaam bi muhammadu nuur mooy leer gi yàlla bindoon avant muy bind asamaan ak suuf ci la yàlla bindee jaam yi wax jooju taxawul muhammad moom muhammad la séddale ko muhammadu muhammad personne ak muhammad lumière loolu fu mu jógee muhammad muhammad la alayhi salaatu salaam bi amina jur ak abdallah abdul mutalib doon baay ji abu taalib doon baay tëx na ah muhammad boobu lañ xam benn bi la musul wax fenn ne man muhammadu nuur la awalu ma xalaqa allahu nuur nabiyika yaa jaabir al imam zahabi al uqayli ibnu adi ak ñeneen nee nañ ko xadis kon kooku mënoo ci sukkandiku même boo ko fekkoon ci ab téere du luñ fekk ci téere lu ne wér na wala déet du luñ fekk ci téere lu ne wér na toolu toolu toolu toolu firi ñax boobu fekk rek firi la toolu firi soo ko duggoon ñax boobu fekk rek firi la comme toolu firi la ñax bu fi sax rek firi la di nga buddi ñax bu dul firi kon teg ci ne Isa jaamu yàlla la yonentam la du yàlla du doomu yàlla du xaaju yàlla du xaaju nit ya waaye jaamu yàlla la yonentam la kàddoom googu muy baata kun yàlla moom la ko sàkkee ci yaayam Maryam isa ruu la ci ruu yi yàlla bind nga seet ne àjjana dëgg la safara dëgg la suñu borom dugal la àjjana ak loo mënti jëf wala ak say jëf mënti toll bokk na ci mooy tawxid bi ñu wax sànq kon mooy sabab bi tax nit ki dugg àjjana xadisu jaabir bi ak xadis biñ gis xadisu anas bi sànq man maata laa yushrik billahi shay'an daxalal janna ku faatu bokkaale woo yàlla ak dara àjjana ngay teere ci loolu ba ta bàyyi xel beneen bi mooy tawxid dalay tere nga nga sax safara même boo duggoon safara yow nit ki yow individu bi da ngay mucc ci li nga xam ne mooy safara si da nga mës a génn dem li nga xam ne mooy àjjana loolu ñëw na ci xadis yu bëri bokk na ci mooy tawxiid mooy sabab bi gën a rëy pour nit ki am ngërmaande yàlla mooy sabab bi gën a rëy pour nit ki am li nga xam ne mooy mbégtem yàlla ci kawam fii doomu aadama bi mbégte mooy wut tër mbégtem yàlla yaa ngi tànn na nit ñëpp kontaan ci yow te yàlla kontaanul ci yow di nga taxe na la nit ñëpp mere te yàlla kontaan ci yow baax na wala baaxut waaw moo tax ñu ngërmaane diw rek la ñuy kër kër yi ngërmaane diw moom diw fayaatewul ay tuyaaba fii benn ngërmaane lañ fi wut mooy bu borom bi yàlla mooy fay yàlla ku mu gërëm mucc nga na la ñëpp gërëm wutal ngërmaane ku la neex yàlla gërëm mu la wallahi perte nga kon ngërmaane gi tax nga war a kër kër yi kaw suuf mooy bu borom bi subhanahu wa taala loolu la yonent bi alayhi salatu salaam wax ne fa inna laa xarama ala naar man qaala laa ilaha illallah yabtaghi bi zalik wajha allah yàlla aramal ci safara ku wax laa ilaha illallah di ci sàkku ngërmaane yàlla bokk na ci mooy tawxiid ci koy dund mooy ci mérito ramm yowmal qiyaam bu yonent bi alayhi salaatu salaam ramm bi yonent bi def abu hurayra laa ginoo yonent bi ne ko man as'adu nnaasa bi shafaatika yowmal qiyaama ya rasulallah qaala man qaala laa ilaha illallah xaalisan min qalbi kenn moo gën a yàlla sa ramm bi yowmal qiyaam mu ne ko ah mooy ku wax laa ilaha illallah mu dëgg ci xolam mooy bi nga waxee ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla ngay dem di jaamu yàlla mais toog takk say haut-parleur amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla gars yi romb la dem jàkka ja jaamu ji yàlla ñëwaat nga naan amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla yow yaa ngi jaamu yàlla kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla amul doo dem jaamu ji yàlla gars yaa ngi jaamu yàlla li ngay wax xamoo ko dafa mel ni rajo boo xam ne dañ cee teg kasetu alxuraan rek benn xusari wala li mbokk mi doon benn maahir buy jàng alxuraan gi lu mu neex neex rajo bi xam na neexaay bi rajo bi xam na neexaayu alxuraan xamu ko parce que rajo bi amul xel léegi am na nit ñoo xam ne comme rajo dañuy répété te xamuñu lu ñuy wax wallahi rajo bi alxuraan bi lu mu neex neex xamu ko rajo nga teg ci alxuraan ak musique moo yem ci moom wala de day def day def distinction bi rajo xamu ci dara yow mi koy déglu ci yow lay neex wala de ah yaa xam ne li may déglu alxuraan la neex la mais rajo bi xamu ci dara am ñoo xam ne noonu lañ mel rajo lañ dañuy répété mais li ñuy wax xamuñu ci dara parce que yow mënoo toog as 50 mètres ci jàkka ji amul kenn ku ñuy jaamu ci dégg ku dul yàlla waa koñ bi yëpp di dégg gaa yi dem jaamu ji yàlla rombaat la ñëw dugg seen kër nga naan amul kenn ku ñuy jaamu ji yàlla gaa yi demaat jaamu ji yàlla rombaat la ngay wax loolu li ngay wax lan la boo ko xamoon dem defi ko mooy li ngay wax da ngay répété ba xamoo ci dara baat bi sax xamoo lu muy signifie contenu baat bi xamoo ko li mu enveloppé xamoo ko li muy firi xamoo ko sensu baat bi xamoo ko yow li la ci yitteel mooy wax ji mais laa ilaha illallah wax ji taxul ñuy wax de bu doon ku ko wax rek texe yéefee bi day nekk ci lu ko neex caaxaankat bu nekk dem bay dee comme ku wax laa ilaha dem àjjana même boo ko dudul gën a laa ilaha illallah dem àjjana yàlla yàlla du ko ñuy triqué du ko ñuy nax yàlla du ko ñuy triqué du ko ñuy nax mbir mi da nga koy dund da nga koy da nga koy dund tey bokk na ci mooy tawxiid mboolem jëf yi ci la tege yi feeñ ak yi nëbb julli lu mu rafet rafet te sellul tawxiid lalu ko borom bi du jël ma ko waxee woon sànq jaamu yàlla lu mu baax baax te yàlla taxut tawxiid lalu ko wéetal yàlla lalu ko suñu borom du ko nangu moo tax jëf yëpp ci tawxiid la ñu reposé bu jëf ji wéetal yàlla bu ko lalee suñu borom du jël su ko lalul suñu borom du ko jël moo tax jëf yi ci lañ wékku li ñu tuddee shuruutu qabulil amal moo jëf ji nga am ci ndigal mu sell defee ko ni ko yonent bi defee jaamu yàlla boo def charia foog nga am ci ndigal wa maa umiru la yàlla wax al amr illa li yabudullah muxlisin lahu din kon foog nga am ci ndigal man amila amalan laysa alayhi amruna kon foog nga am ci amr jaamu yàlla gi foog nga am ci amr ndigal ñaareel bi mooy foog mu sell al ixlaas ñetteel bi al mutaabaa mooy nga roy ci yonent bi alayhi salatu wasalaam boo fi defoon jaamu yàlla gu yàlla diglewul bu sellee sax baaxul boo fi defoon jaamu yàlla bu yonent bi diglewul bu yàlla diglewul amoo ci ndigal mënoo ci roy yonent parce que jaamu yàlla boo xam ni amoo ci ndigal doo ko fekk ci alxuraan doo ko fekk ci sunna doo xam ni ñu koy defee far doo xam ni ñu koy defee loolu su boobaa kon mu taabaa mun faa am bokk na ci mbokk yi mooy tawxiid ku la ko gën a mat la ci xolam moom nit ki effet bi muy def ci moom mooy xolam day set day sell xol bi soo ko ubbee yàlla rek nga fay fekk xol bi yàlla fay fees du fa xajal keneen du wékku ci kenn ku dul yàlla du yaakaar kenn ku dul yàlla du màggal kenn ku dul yàlla ah waaye du am kenn koo xam ne day yaakaar wala mu lay fonk wala mu lay wet ni mu koy defalee borom bi subhanahu wa taala bu tiitee yàlla lay woo bu jàqee yàlla lay xettali ko suy laaj ci mbir yi nga xam ne yàlla rek lañ ko war a laaj yàlla rek la koy laaj du ko laaj keneen ku dul moom suy xettaliku ci mbir yi nga xam ne suñu borom rek lañ ci war a xettali ko moom rek lay xettali ko du ko du sàkku keneen di ko di ko xettali ko lu tax yàlla fees ko yàlla moo fees xolam bokk na ci mooy tawxiid effet bi muy def ci nit ki mooy day woyofal ci jaam bi ay coono ak ay natt nit ki su gëmee yàlla gëm ne suñu borom moo ko sàkk moo ko moom lu ko dal suñu borom la lu ko dalul du yàlla la lu mu waa yàlla dogal ci moom foog mu am ko lu yàlla wax ne dina ko am bu nit ñëpp dogaloon ne du ko am dina ko am lu mu warta am kenn mënta fexe ba mu am ko lu ko war a dal da kaa war a dal lu ko warta dal kenn mënta fexe ba mu dal wa alam annama asabaka lam yakun li yuxti ak wa annama axtaaka lam yakun li yusibak su fekkee ne am na dara day sant yàlla su ñàkkee dara du mere diw du jéppi diw du siis diw du xeelu diw ah du accuser diw tuuma la boo demee diw xamoon naa ko diw kay li mu doon wax li mu doon def xamoon naa dama am yàlla dogala nga doo am du diw bu yàlla dogaloon da ngay am bu yeboo diw wax bu yeboo mu jëf bu yeboo mu yàq da ngay am munu koo téye munu koo munu koo téye maa yaftahi llaahu linnaasi min rahma fala fala mumsika laha yàlla li mu la ubbil ci lu war a agsi ci yow kenn mënu ko téye ku ko mën a téye kenn kon da ngay gëm loolu da ngay am benn tranquillité intérieure benn apaisement intérieur dal looy wut da nga ciy ànd ak sago loo ñàkk da ngay ànd ak sago ak muñ ak ngor ak dignité xam ne suñu borom moo la ko xañ amaana gënul ci yow waaye doo naan diw diw moo ma ko xañ wala diw moo ma làmmiñ wala diw moo def nangam wala diw moo yàq am mbir mi déedéet diw mënoon naa jéem a yàq te yàlla na da nga koy am da nga koy am kon loolu boo ko gëmee da ngay noppoon loolu bokk na ci li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la bu baax a baax a baax bokk na ci mbokk yi mooy tawxiid day libéré nit ki doo nekk jaamu kenn kenn moomu la jaamu kenn ku dul yàlla kenn moomu la ku dul yàlla ah doo toroxlul kenn ku dul yàlla doo toroxlul kenn ku dul yàlla doo màggal lenn lu dul yàlla looy màggalit bu dee charia sax dalaa sant na nga màggal loola comme bërëb yu baax yi muy màkka ak madina dañ leen a war a màggal ak jàkka yi dañ leen a war a màggal yooyu da ngay xam da nga leen di màggal ci màggal gi ngay màggal yàlla parce que yàlla la ko sant suñu borom moo la ko sant loolu moo tax tawxiid da lay libéré nga yëg ni doo jaamu kenn kenn moomu la yaa ñëpp bokk nekk ay jaam kenn leen moom ngeen war koo jaamu yéen ñëpp mu yàlla kon luy aju ci ak xeetu jaamu yàlla doo ko defal kenn ku dul ki nga xam ne mooy ki ñu war a jaam mu yàlla keneen ku dul yow keneen ku dul yàlla da ngay jàpp ne jaam la ni yow yéen a war a ànd jaamu waaye moom du ku ñuy jaamu mais da ngeen a war a ànd yéen ñaar ànd jaamu ki ñu war a jaamu te mooy yàlla loolu tawxiid noonu lay def bokk na ci ba tey mooy tawxiid moom rek moo mën a tax nit ñi nekk ñoo xam ne dañuy am ndimbalal yàlla muy jullit ñi fii ak société jullit ñi société yi ñu ngi bokkaale yàlla ñu ngi wutal yàlla ay moroom ñu ngi wax ne am na ku mën li yàlla mën wala ku xam li yàlla xam wala am na ku sañ li yàlla sañ ah nañ yëg ne suñuy noonu dañuy féete kaw dañuy gën a dellu ginnaaw waaye duñ jiite mukk aduna bi duñ amaan ngañaay seen kaw comme ni ko yàlla leerale ci suratu nuur aaya 55 bokk na ci mooy suñu borom nit tawxiid yàlla da koy aaral boppam mbooleem nit ku doon woote tawxiid ay nit di la programmer bëgg laa yàqal bëgg laa indil ay jafe-jafe bëgg laa teg ay coono suñu borom moo lay défendre moo lay aar inna allaha yudafiu an alladina amanu yàlla dafay protéger ñi nga xam ne dañoo iman dañoo gëm yàlla wéetal yàlla yaakaar yàlla suñu borom moo leen di aaral boppam bokk na ci mbokk yi mooy tawxiid société bu mu bëri njabarkat dafay néew dañ fay daw njabarkat yi duñ fa feeñ njabarkat du fa nekk star gisaanekat du fa nekk star gisaanekat du fa feeñ dañuy làqatu ah waaye sax dañuy daw boo gisee ab société njabarkat yi nekk star gisaanekat yi nekk star nekk au devant de la scène ñu leen di invité ci télé yi nekk à la une ci journaux yi am ay site internet am ay page Facebook def ay publicité takk ay tableau ci koñ yi nangam koñ boo dugg gisaanekat nangam ñu bindal la ko voyant le voyant nangam ñu ne déet ñu def ay voyance direct ci rajo yi voyance direct ci télé yi voyance direct sax ci ay site internet lan lay tekki mooy société ba dañoo xam ne nit ñi dañoo seen tawxiid seen wéetal yàlla dafa feebar bu nit ñi doon wéetal yàlla ñoom amuñu fi place parce que koo xam ni tey la dimanche dimanche bii passé ba ca tegee su mu la laajee loo reeree fàtte nga ko yow li nga def ba pare da nga koy fàtte li nga def léegi lu ñëw gudd nga bëgg ko maîtriser kan moo fi jàpp dimanche bii bële doo ko jàpp dimanche bii passé ba ca tegee lan nga reere xanaa mu nekk calendrier bu fixe wala nga amoon ci xew naa xew sàngam la woon lii laa ci reere woon bu dul loolu xamatoo lan la buñ la waxoon le premier août bi passé loo añee xanaa bu dee calendrier nga dellu ci nga dellu ci emploi du temps bu dee emploi du temps togg la bu amul le premier août bi passé loo añee woon xamoo ko loo reere xamoo ko léegi yow li ngay def yaa ngi koy fàtte lu ñëwagul nga bëgg ko maîtriser yow sa mbiru bopp mi xamoo ko di wax ne gisaanekat bi dafa toog di gisaaneel benn waay fi mu toog di gisaaneel benn waay police ñëw fekk ko ko jàpp ko ci benn waay boo xam dafa lekk xaalisam léegi yow gisoo police mi ngi ñëw nga dab ngay gisaaneel nit xoolal caaxaan yooyu xoolal caaxaan yooyu ñu nax ci nit ñi tey ci nax yoo xam ne yu métti la Sénégalais yi gëm ko gis na benn waay mën naa gis say mbir kii naan la dama lay léeg-léeg nax nit ñi dañ jëfandikoo baatu baatu sharia yi damay dama lay istixaaral yeneen bi mos naa istixaaral saxaaba yi yeneen bi am na ku ko dàq istixaara ku jàngale istixaara ah istixaara ku ko jàngale kon ku daax istixaara ci nit ñi yàlla bind kan la mos naa istixaaral ay soxnaam ak i saxaaba yi jox leen ma lu ma fa naanoo ma istixaaral leen yonent bi daawul dem ay ay ay ay ay guerre mos naa ne xaaral ma xool gisaana guerre bi tey Uhud wala Tabuk wala Ahzab bi ñooy gañe wala dañuy gañe su ko defee ñu fomm ko wala ñu exécute mos na ko def ah tey ay nit ñëw naan la di dugg dara te xamugoo nu muy demee wóorut fekk na fond de commerce la gisaane kat yoo xam léegi dañuy am secrétaire am salle salle d'audience da ngay dagg tiki am numéro gaa ñi rang mbokk yi mbir mi dafa dox de léegi loolu ku ko bëgg a yàq ku nekk menace ngay doon ko tax léeg-léeg dafay reetaan lool léegi dem ci ay place nit ñi nga yëg ne ñii ñii comprendre ne yow da ngay yàq seen liggéey lay joxoñ joxoñ yu métti métti nga yëg ne ñii ñu ngi sentir ne yow yaa ngi yàq seen liggéey bu baax a baax a baax a baax ah parce que nitu tawxiid dañ ko bëgg day nekk un élément perturbateur lu tax mooy da ngay conscientiser nii da nga leen di yee parce que doomu aadama yi bëgg nañ diine xam nañ ko mais dafa am lu fi nekk loo xam ne dafa làqatu mooy mi ngi ci biir foog ñu yeewu bis bu yeewoo ba ni ñu yeewu mu ñoo xam ne ay béy ay ay ay bukki bukki lañ yoo xam ne dañoo sàngoo deru béy te bukki bu sàngoo deru béy bis boo yëkkatee der bi bis boo yëkkatee der bi ba béy xam ne bukki la du béy ah dina am nu mu demee te am na ñoo xam ne nag dañoo dugg ci biir gétt gi nekk ay bukki yu sàngoo deru béy bëgg a nax béy lekk leen léegi lan la ñuy def ñun dañuy der bi rek der bi rek la ñuy ñori pour béy xam ne nii wala lii bukki la kat waaye du béy bukki bu rax ci biir la am lu mu bëgg su ko defee lu bëri leer loolu moo tax tawxiid loolu lay def ci nit ki mooy société bu mu am njabar dafa bëri bu amee dañuy làqatu ngeen yaakaar ne njabarkat yi amuñu woon jamono yonent bi yonent bi dañ koo njabar lu tax ixlaas ak naa si wàcc amuñu woon jamono saxaaba yi xulafaa raashidun Omar ñaata njabarkat la ñoo daw bi mu nekkee amir ñaata njabarkat boo jàngi histoire ñoo daw génn Médine parce que xam nañ fu Omar bi mu jag ñoom lan lay tekki mooy société bu am wéetal yàlla tawxiid njabarkat amu fa place day daw parce que xam na ni man mii li may def baaxut charia da ci am position day gaaw jël ay mesure am mais bu ko leer ne fii nit ñi dañoo sàggane wéetal yàlla tawxiid leerul seen bopp ñu fooye leen génn ba pare nag bu ko defee naan la man li may def ci laa ilaha illallah laa koy def laa ilaha illallah tere ko noo koy defee ci laa ilaha illallah li ngay def am contradiction ak laa ilaha illallah yow sa laa ilaha illallah toj nga war ko beesal nga naan ci laa koy defee loolu kenn xamul lu muy nuru mbokk yi tawhid mooy li mën a wone taaru rafetaayu lislaam wéetal yàlla parce que dina joo xam ne doo sujutal kenn ku dul yàlla doo sukkal kenn ku dul yàlla doo toroxlul kenn ku dul yàlla doo daanu ci suuf ku dul kenn ku dul yàlla doo jaamu estati jaamu woo bàmmeel jaamu woo xërëm jaamu woo dara mennum yàlla ngay jaamu dina yooyu dafa set dafa civilisé dafa dëppoog xel dafa dëppoog logique waaye dafa nite waaye dafa rafet xool leen ñi samp ay estati di ko jaamu xoolal inondation yi am Inde benn waay buddi yàlla am di daw ak moom parce que dafa lab dafa lab léegi loolu nite na set na est-ce que nite na set na nitewul setut nitewul setut yàlla joo xam ni ndox mi koy inondé munu cee rëcc yow yaa koy yow ko yaa waroon nekk yàlla am kon bu fekkoon ak yàlla mën naa nekk parce que yaa ko sauvé yaa ko sauvé li muy tekki mooy yow mënta nekk yàlla sa yàlla mënoo nekk yàlla am ki nekk yàlla kenn la muy borom asamaan ak suuf daanaka wax kon waxtu bi jeex na yal na yàlla defal tawfeex te defal leen ko wa yeneen jotaay xëy na du ñàkk insha allah tomb bu ñu war a gën a leeral la tomb bu am solo la bu ñu war a waxtaane ñu gën ci mën a jëriñu hada wallahu aalam sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain insha allah ba ci yeneen daje ak yeneen jotaay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu